asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 7 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb li ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk lenn la maanaam Balla Gaye numéro 2 daal la xëy tey fësal ko lam ko fësale nag lenn la maanaam Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi dafa ñëwaat ci ay combat yoo xam ne nii bëri woon na ko muy combat yoo xam ne ni daal soo bëggee dégg-dégg maanaam baat ak tontu la maanaam ci ay seconde daal la daan mbër yi nga xam ne nii ñoom la jàkkaarloon yëglikaay bi jukki ci ñetti combat bokk na ci digganteem ak Modou boo xam ne yëglikaay bi nee nañu daal 21 secondes maanaam ñaar fukki seconde ak benn la ñu bëre Balla daan ko jàll ñu ne déet na waay Mouhamed Ndao Tyson idole ba ñëw tamit moom boo xoolee fanweeri seconde maanaam 30 secondes daal la jàmmarul ak moom daan ko jéggi ko jàll ka nga xam ne nii moom mooy xaritam di baabooy tamit ñëw ca combat ba leen boole woon 42 secondes maanaam ñeent fukki secondes ak ñaar la ñu bëre Balla Gaye numéro 2 dal di koy daan yëglikaay bi di suñu lamb xëy tey ñëw defal ñu boobu jàngat mu mel ni ki daal ñetti combat yi gën a gaaw ci carrière Balla Gaye léegi likaay bi xëy tey ñëw tënkal ñu ko mu neen mbërëm bi nii moo xam ne nii moom soo bëggee dégg dëgg maanaam fi mu nekk nii moom boo xoolee na mu débuté woon ci làmbam daal dafa neexoon trop teglante ay ndam di moo xam ne nii bëri na ay victoire trop te néew ay défaite ñu naan ko l'an 2000 sunu làmb xëy tey ñëw indilaat ñu ko boo xoolee ay victoire am toll na ci 13 victoire mu am lu toll ci ñetti défaite te boo xoolee ñetti mbër képp a ko daan muy super jamono moo ko daan garga mboose ak ki nga xam ne nii moom moo di forza bu faas yéegi likaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw toppal ñu loolu forza mu faas Fass mooma nag moom daa mel ni bu fekkonte ne daal dafa noppi wax na nag fi mu nekk nii daal yëglu na de fëgg na bunt ya ba mu fëggee nag ñi mu fëgg seeni bunt ñenn la maanaam ka nga xam ne nii moom moo di Malick Ñangu Yoff daal Forza fëgg na buntam ne ko pare naa kaay nu bëri maag yow ndax làmb danoo boole ñu ne ko fa la yem mu jógee Yoff wutali parcelle fekk fa ka nga xam ne nii moom moo di garga mboosi fëgg buntam tamit ba mu yëngutu ne ko kaay yow tamit ñu bëre ndax làmb boole nañu nu foog ne fa la yem forsa dox wutali géejawaay fekk fa Sa Thiès fëggaat buntam ne ko dañuy bëre yow ndax dañoo war a bëre ñu ne fa lay yem mu ne du fa yem ñoqali wutali fa nga xam ne nii moo di Grand Médine dem fekk fi Yékini Senior moom tamit fëggu ko ne ko dañoo war a bëre lii daal la forsa xëy tey def ko wala mu wax ko ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb keneen koo xam ne ni moom fëgg na ay bunt muy bébé garga ba nekk ca door dóoraat moom daal fi mu nekk ni moom ne na pare na taxaw temm ngir fas yéene jàmmarloo ka nga xam ne nii moom moo di Pape Ndoye ma nga xam ne mooy rakki lagros ñu ne ko ca la ngay yem mu ne du ci yem tafaatin tamit rakkam ja ñuy wax njaaytin na ko yow pare na ngir defante ak yow doomu saf-saf wii lo ba ñuy wax nag Omar Omar ñu naan ko omes di ab consultant moom ñëw na tey di ca wax jàpp na ne daal wii lo ba ñuy wax partiel daal la jàpp ne lu war a mën a nekk la moom Omar Diagne Omes daal moo xëy tey ci yëglikaay bi di sunu lamb di fa wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci biir yëglikaay bi na combat boo xam ne yëglikaay bi la mu ko tuddee mooy di sunu lamb xëy jox nu boobu boobu information mel nekk leneen loo xam ne ni mu ci yëgli yi muy ba nga xam ne nii moo di record record nag moom tey dafa xëy toppal ñu écrit lamsaar ak juróomi at yi nga xam ne moom la ñu mujje yëgli kaay bi ne boo bëggee dégg dëgg day ah fañ ca taxawee baax na de waa lamsaar daal bu gaay ñen ñi sonne ñoom daa mel ni boo xoolee seen juróomi at daa mel ni baax na ndax 69 victoire am nañ ko am 45 défaite ak benn match si niil ci juróomi at yoo xam ne teglantoo na moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal c'est ak waa lamsaar moom ñu ngay respirer maanaam ñu ngay noyyi a wóor a wóor war a xëy ñëw tey waxal ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag yëglikaay bi yemu ca de maanaam daal ndakaaru na muy préparé li nga xam ne ni moom moo di fusion ba nga xam ne war na ko seq ak écurie Fass daal yëglikaay bi tamit tey xëy na toppal ñu loolu ci gëstoom ka nga xam ne ni moom moo di Abou waaye loo ci mën a dégg moom ñun la ñuy ñaan mooy coronavirus bi nga xam ne mu ngay ñoqali di dem ndax nag tey xulli deux cent vingt cas daal yaakaar naa moom la médecin yi xëy tey wax ne moo am ak ay dese yoo xam ne xaw naa bëri kon yàlla yow la dañuy ñaan yow mi am te man nga dindul ñu fi ndax nag fi mu nekk nii day sonal nañu ba tax na sax dellooti nañ ci la nga xam ne nii moom moo di couvre-feu muy lu méttee méttee métti kii maa ngi di leen siyaar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp ñi nga xam ne dañuy suivre ak fu ngeen mën a ne si àddina bi rek ñu ngi leen di bégge di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di leen wax nag ne tey moom ñu ngi ci alxames maanaam jeudi juróom-ñaari tey nag yëglikaay yi moo xam sunu làmb la tey dafa ñëw ci Balla Gaye numéro 2 ancien roi des arènes le lion de Guédiawaye comme ni ngeen ko xamee daal ci ay combat yoo xam ne bëri na ko muy combat yoo xam ne yu gaaw a gaaw la ñetti combat la yëglikaay bi jukki bokk na ci digganteem ak Modou Lô boo xam ne ci 21 secondes lañ bëre Tyson 30 secondes Baboy 42 secondes mu mel ni ah boo xoolee maanaam loolu combat yooyu defe naa ne ku ne yaa ngi fàttaleku Modou Lo ak euh, Balla Gaye seen combat mu njëkk moom defe naa ne na mu meloon ci wàllum engouement dëkkoonte ak waxante ak mbooloo ak wàllum ko médiatisation jafe na combat melati noonu ba tax na moo tax bañ ci yëggee kere Demba Diop yaakaar na nit amul foo teg sa tànk ba at bi soufflé tamit ah mu mel ni ñaari mbir ku ci ne la nga waxoon da nga ko respecté Balla noonu na du daw ko du ma daw ba ñu ba loxo yi jógee dañoo daje jàppante bañ jàppante wëri bëre yàlla def mu balla daan muudu mooy combat boo xam defe naa tey kenn dootu ko fàtte ci gaawaay ak façon technicité ba ci am ci bëri ak li muy gaaw gaaw xam-xamu bëri génn na fa ci ñaari mbëri yëpp ñu ne déet ne waay mu jëli Tyson moom balla tamit ñëwaat gis nga keram ak Tyson waaw dañoo xeex sa këmtal sànnente ay ko mu daw jàpp ko yaa ngi dégg Tyson di ko kii rek balla xaji ko mboot daan ko jël bu rëy moom tamit mook baa booy gis nga tamit da nax ba jàpp ko gis nga fa mujj ak moom daan ko jël bu leer nañ mu ah loolu nag li ko liñ ci mën a gisee mooy mbër la boo xam ne moom Balla Gaye numéro 2 ci li gis ci moom bëre moom fort la trop trop ci moom maanaam jàpp bëre saa jàppee moom day nag maanaam ay sansam day bëri parce que loolu moom la ñu gis ci carrière am dinaa muy bëre ba tey mbër la moo xam ne ni dina xeex ci biir làmb waaye xeexam xeexam bu jàppee itam yaakaar naa ne ah bëri day feeñ loolu nag li koy maye mooy il faut li ngay def nga jàng ko ba man ko rek xëy na loolu moo tax saa bu jàppee bëre daal di am te boo xoolee keroog ku mel ni Eumeu Sène wax na lu mel noonu nee na Balla li ko neex si moom da di buy bëri moom day bëri waaw loolu moom defe naa ñëpp gis nañ ko waaw ba tey bu ñu fa jógee continuer ñëw ci meneen mbër moo xam ne itam kenn du lam-laamee bërim ci lutte simple ci lutte avec frappe muy mbër moo xam ne vraiment mu waaw bi mu départ daal départ bi doyoon na waar muy l'an 2000 l'an 2000 nekk écurie Zapp di doomu Joal Faajut dëkk ci dëkk yooyu di mbër mu mag wax dëgg yàlla marqué empreinte am ci lutte simple avec frappe même ci équipe nationale tey nag yëglikaay bi ñëw na ci moom boo xoolee treize victoire defe naa ne su ma jumul ku ko am xulle ak trois défaites yaakaar naa ne mbër mbër piir nga te boo xoolee mbër yi mu daan ci biir carrière ah da ngay xam ne waaw waaw mbër la moo xam ne ni daal waaye nag lamb ji dañoo dem ci at yi passé mu xaw a taxaw moom itam ay combat mu xaw a néew mu ñàkk fi ay komba te mu Forza defe naa ne su ma jumul mujj na fi jàmmaarloog moom ñàkk boobu combat muy mbër moo xam ne itam defe naa ne li ñu rek mooy moom combat moom mu la bu mbër mu ndaw keneen koo xam ne nii moom bëri na ak moom muy Forza mi ko daanul itam moom it xëy na tey wax waaw wax na daal <laughs> wax na de Yékini Senior la waxal hmm, Malick Niang Garga Mbossé ak Sa Thiès ñi daal la fëgg seeni bu ne leen moom yéen faaw ñu bëri ma ne ko waaw am nga ci droit parce que nag defe naa ah ku daan lan 2000 mi rek ci ci ci ci làmb dafay doy pour nga war dëkk mbër yu ki noonu mbër yu mel ni ki noonu daan Abdou Diouf loolu defe naa ne tey doy na ngir nga war a mën a nag jàmmaarloo ak mbër yi nga lim te defe naa ku ci nekk ci ñoom rek lamb boole na la ak ñoom waaw waaye nag promoteur yaa ngi fi ñoom ñu ngi dégg combinaison yi war na mën a nekk boo forza ñu xool ku xool ko ku mu war a mën a bëreel ci ñooñu mu dëkk keneen koo xam ne ni ab xale la moom itam di espoir boo xam ne mu ngi ca dóor dóoraat ñu koy wax bébé te xale boo xam ne bu jara bàyyi xel la moom itam nëbbul ay waxam njaaytin daal la xëy waxal ak Pape Ndoye rakki lagros ak rakki tafaatin daal la jàpp ni ñii moom mënuñoo jaar fen ba defantewul ak ñoom waaw ma ne ko loolu moo war a am parce que li tax mooy euh, mbër mu mbër mu ne soxla nga bëre koo xam ne jàpp nga ne am na lu mu la war a nga jàpp ne war nga mën a defanteeg moom te su ngeen bëree nga daan ko waaye nag tëkk nga ñaar ñoo xam ne ah ay ay jàmbaar waada lañ ay mbër pire lañu waaw Omez Diagne moom huis partiel la wax waaw huis clos daal ak lu ci mën a xew moom ku nekk na nga koy interpréter ku nekk na nga koy waxee waaye xam naa daal man moom sama gis-gis ci huis clos mooy su ma sañoon bu ñu koy def itam dina am au moins bu dee mille ci stade ba leen mu am ndax ndax xaw a saf tuuti lamb waaye bu ñu ko defee huis boo xam ne kenn du fa toog moom comme la football ba nekkee moom defe naa ne loolu moom du luy neex ci lamb liy njaay itam di ab promoteur ñëw ci combat boo xam ne combat des ko yëglikaay bi tudde muy diggante ngeer bu zap ak ki nga ne moom mooy mbay jëy fay ku ci nekk ci ñoom ñaar boo xoolee nag bi ngay mujj bëri dañ la daan defe naa ne kon leen joxee combat ñoom ñaar Laye Ndiaye bëgg na ah ñu bëri wane waat seen bopp génn Laye Ndiaye ñu koy nuyu nekk fa nga xam ne moo di ca jàmm gën si gàmbaaw bu ñu continuer dem dellu ne nii moom moo di ca record du ñu sori jàmm gën si gàmbaaw ndax ku ne lamsaar ne jàmm gën ne si gàmbaaw ndax benn gox bi la ak écrit boo xam ne mu nga fa di lamsaar écrit boo xam ne wax dëgg am na ñu mérite ndax bi ñu ko sancee yàggul te boo xoolee la fa ne tey ci na trop macha allah yaa ngi dégg yemuñu ca cinq ans yu mujj yi la Abou xëy tey topp topp topp leen ci mu mel ni cinq ans yi boo xoolee am nañ ci 69 comme 69 victoire ak 45 défaites ak benn niil muy loo xam ne nii boo xoolee taux de réussite bi mu ngi toll ci 60 pour cent muy loo xam ne wax dëgg yàlla lu baax a baax la ci écurie boo xam ne ah, yàggule juddu waaw am na eh, yàggul juddu boo xoolee Père Maxime Bergane bi mu jógee Caaroy di dem di kere ji Lamsaar yàggul defe naa boobu eh, mbër yu bëri ci gox yooyu xam nañ leen waaye mu dem ànd ak ñam mu jàpp ne bu defek ñoom dana sotti mu def écrit ba ba écrit ba tey bokk ci écrit yi nga xam dañ leen di limbu ci wàllum résultat yu baax ndax jël nañ fi premier ay yoon yaakaar naa ne écrit Ndakaaru ak Fass fusion ba tamit ne nañ ah Ndakaaru mu ngay waaw naka lay préparé daal waaw fusion boobu ak saison bi loolu lépp yëglikaay bi di record tey xëy na tey ñëw ci waaw waaw waaw xaw ma nag waaw wàllum bras de fer administratif itam ah nañ ko ci xaar parce que lu nekk mën a ne parce que tamit écrit yi am na président am na ay secrétaire am na lépp administrativement kon nag saa yuñ ci am na loo xam duñ ko bëggee def itam mën na indi problème bu fekkente ne ña sëq ñëpp waxtaanuñ bu déggoo waaw parce que di nga sanc écrit itam écrit ba du rek dafa dogal déedéet parce que li tax mooy dañ koy organiser mu am bureau am président am yëpp yooyu nag su amee am na lu bëri su ngeen ko bëggee def yoon ñëpp da ngeen ciy waxtaan parce que réew mi nu nekk mu di réewum yoon kon Fass ak Ndakaaru daal lépp lu ñu mën di def moom ah ne moo fi ñëwoon tey ah mu ngay gën a ci dëkk bi waaw waaw parce que itam deux cent vingt cas moom ci benn tey ah loolu doy waar la mu ñuy ñaan rek yàlla yàlla na ko fi yàlla yemale parce que vraiment ah mu ngi bëgg daal metti mu ngi bëgg a metti ñu ñaan jàmm waaye di wax tamit ne ñi mu dal ah ñu ngi leen di ñaan yàlla yëkkati leen waaw ñi ci génn àddina tam yàlla na yàlla xare aljana ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal loolu la ñuy ñaan di ñaan yàlla mu jox ko ci àddina bi waaye di wax benn kii tuuti rek euh, xulle fële ca sama dëkk di commune Ndondol wala département de Bambey euh, sama commune sax laay wax parce que dëkk bi ma dëkk man di ak yaay dañ fa waxoon xaawoon wax lu mel noonu te nañ ko waxee si dafa benn nit dafa amee woon corona ba moo ko yóbbu ak yooyu euh, ñu ñaanal ko yàlla ay jeexi jaaxa ci nit ñi yaa ngi dégg mu nekkoon loo xam ne xaw na xaw a yëngal ay indi na fa daal wax ne yéen ñi yore wàllu bu baax a baax a baax ndax defe daa am corona yéen ngeen xam ne am na corona ñu indi ko ñu faj si ko yàlla def ngeen faj ko yàlla jël bakkanam ngeen bàyyi ko ay mbokkam ñu yóbbu ko denc ko te mu leer dafa amoon corona dafa naa loolu su ngeen ko defee yéen ña ko tiimoon di ko faj bu toor amee yéen a koy yéen a am toor ba mais nag ñoom ñëwaat nañu xamal askan wa ak waa dëkk ba ne leen kat loolu amul affaire corona ñu doon wax amul kon loolu mooy mooy lu leer corona nag nekkul loo xam ne nii parce que feebar moom jarut dawante jarut kiyante ñu ngi ñaan yàlla daal mu yemale ko fi te ñi mu dal yàlla wéral leen di tamit jaajëfal suñu médecine bi rawatina li nga xam ne nii moom waa ministère la santé képp kuy yëngutu ci wàllum faj parce taxawaay vraiment waay mën a wax xulle taxawaay bu am solo lañ taxaw médecin sénégalais yi di ci nuyu kilifa gi nga xam ne moo ne ci kaw santé bi ci bopp ba di Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne ni vraiment effort yi am na solo trop di ñëpp ñoom docteur Seyde yaakaar naa na ñoom ñëpp ñu ngi leen di dégg boobu ba tey te ku ci ne yaa ngi ciy bay sa waar kon yàlla na ko fi yàlla yemale xulle di la béggee di ñaan jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa